mbokk internet yi bàyyi xel SBT amaan nañu mbégte ak kontaan tey ñëw fii seen émission nay riir tey nag nay riir la bu spécial ndax ki ñu daal muy koo xam si ni macha allah artiste la boo xam si nii euh, kenn dooru ko présenté ci biir réew mi rawat na bitim réew internet yi bëgg ko lool di ko safoo muy Cherif géey borom ci mbox Cherif SBT ñu ngi lay nuyu. waa SBT foofu sama tale la sama chute la ñu doon ñoo xam ne moom ca kaw sa kanam rek maa ngi leen ni fay di nuyu Kaolack gi ma jugee di nuyu sama base Thiaroye. di nuyu waa yëmbal waa géejawaay baxdaat ba banlieue bàyyuma kenn di ñaanal sama yaay ju baax ji mu yàgg fi di ñaanal sama papa yal na ko yàlla xare àjjana waaw xarit SBT la miin ngeen ko seen émission nay riir wax naa leen ko ñu dalal tey ah, doomu Géejawaay la waaye doomu Kaolack la doomu Sénégal la doomu réew miin ngeen ko ah, ci ay paroles yu bëree bëri ci wàllum kebatu wàllum tëgg ah, ak yu mel noonu waaye ngeen miin ko ci ambiance Chérif euh, koo xam si ni chaque jour mën naa la weekend bi su jour yëpp da nga daan joué nga toog presque euh, presque un an sax mën naa ne yoo xam si ni Sadio tëggoo defa dara noo ko dundee ni ma ko dundee mooy premier bi mooy maa ngi sant suñu borom te xam ne lu fi suñu borom teg la di ko dundee li koy ni ñëpp di dundee di leen kon nangul nag parce que feebar la feebar la bu fi yàlla wàcce waaye yaakaar naa ne feebar moom suñ borom jaamu suñ borom la comme ni ko suñ munta suñ muntaxaa waxee maa ngi koy maa koy maa koy ziyaare waale feebar la te feebar suñ muntaxaa nee na lii taalibe la bu suñ borom yebal mu nekk mission su ko suñ borom moo ko fi teg su ko teggee dina dañ te yàlla na ko teggi si barke Seydina Mouhamed waaye tamit buñ ñu teree loo xam ne ñun suñu liggéey la parce que ñoom ñu ngi seen liggéey président moom moo jóg leen ngeen liggéey moo gën ngeen toog tëdd di wax mais ñoo ngi liggéey mais nit ki nag soo nee dafa bëgg mu liggéey yow yaa ko tax taxaw wax ne liggéey leen mais kon bul xañ nit ki liggéeyam parce que ñoom ñi ngi liggéey mais ñun nañ xool nañ trouver solution boo xam ne war nañoo mën a liggéey parce que dañoo am njaboot comme ñoom te ñun ñoo leen fi teg te ay citoyen lañ suñu amee lu naqari amul nëbbu nit ragalal yàlla soo gisee dëgg na ko wax mais buñ la jox suñu réew rek yow nga teg ne nag yaay yàlla parce que Macky Sall yàlla ñun ñoo ko dénk suñu réew na xool trouver solution boo xam ne ñun dinañ mën a liggéey parce que dañoo am njaboot ñoom nag mënuñoo yor ay milliards ñun ñun dara comprendre nga ñoom ñu bëgg ñoo teg bët nan nu bàyyi ñu liggéey yor dañoo yori njaboot loolu mooy dëgg quoi mais mën nañ dëkk bi ku fi wax ñu jàpp la tëj la si kaso bi te ñuy ay citoyen war a wax lu ñu métti mais feebar feebar la am na feebar yoo xam ne ñoo gën a yéeme feebar bi téeméeri junni yoon am na am na be mooy soo waxee sa soxla ñu jàpp la la loolu lu ko gën a ñaaw loolu moo feebar boobu moo gën a dangereux doo wax sooy wax yaa ngi tudd yàlla mel ne ñoom nag ñooy yàlla mais duñ yàlla nañ trouver solution parce que dañoo am njaboot mais nit ñi nag làq-làqal ak yooyu di kii mais nit sooy dee na nga dee ci dëgg parce que sunu carte la ñu am doon ay sénégalais pire nag amuñ mam bu jugee fenn sunuy maam yëpp fi lañ jugee mais ñun amuñ fi droit amuñ fi baat pourquoi loolu nañ trouver solution moo gën yi ñuy def nii. solution kay weesul mu tibb mu tibb deux milliards cinq cent jox leen. deux milliards waxu ngeen dara. yow ba ba deux milliards cinq ne yow mënoo cee am déglu li ma la wax de deux milliards cinq cent yoo xam ne yow mënoo cee am deux cent mille mënoo cee am cent cinquante mille cent trente mille sax ko ci. te ñun léegi sunu liggéey dépassé na loolu dépp ñun waaye soo duggee suñu kër yi mais suñu ay ay suñu njaboot ak ñi fiy ñëw. dañ leen di dundal mënoo dugg suñu kër yi ñuy joxe dépense yaa may dégg de chaque jour lu mat vingt mille francs chaque jour chaque jour loolu ñaata fan la xoolal at bi chaque jour vingt mille francs waxuma la nag say fay luyaas say ay affaire yow fayoo luyaas defoo dara da nga tëdd suñu lépp yaa may de tey ñoo mënoo ñoo dawal yërmande li tax loolu ñoom luñ liggéey lan lañ liggéey lu dul suñu alal lañ jël di ko bazarder loolu mooy seen liggéey seen. tibbal nañ leen nag tibbal nañ leen. luñ ñu tibbal liñ ñu tibbal nañ ko tibbal par benn nit munu ñoom munu ñoo gérer ñoom tey soo nekkee bitim réew dañ lay jox carte boo xam ne soo waree dem di jënd lekk da koy lekk da nga koy jënd jox la ay ravitaillement yu leer waaye yow 2 milliards yoo xam ne anamu suñ suñ doon 2 milliards yi ñu di ñu dee xanaa 2 nga koy dégg gisagoo ko bala nga koo gis dee nga yow waxoon naa fi ne ñu ñooy kaay ñun dee nañ ba pare c'est vrai dañoo dee ba pare ñun. di dox mais nag dañoo am ngor xam ne yàlla moo ñu sàkk doomu aadama sàkkuñu. ñu bi tëgg programme bi gën a ndaw ñaata nga doon engagé. programme bu gën a ndaw ma lii programme ñu dañ may fay deux cent cinquante mille dama fay trois cent mille programme xew yi su dee nag dama am ay tournée man ma fay benn deux millions wala trois millions yaa may dégg su dee samay dil yu ndaw ndaw ne man rek man sax sak samdi kuy koo xam ne samdi euh, vendredi samedi dimanche lundi moo da koy joué xalaatal sax yooyu noonu yu waxuma la xew yu mag yi de yooyu noonu xew yu ndaw yooyu rek ñu fay la benn bu dee deux cent cinquante mille wala trois cent mille ah ñeenti fan. boole ko mën nga taxaw léegi ci biir géew sa nit dund ak yow loo xam ne macha allah mais dafa ñoo xam ne ay nit ñoo xam ne nag mënuñoo laa woo di la dimbale bariwul am na ñu koy def nag mais bariwul bala ñu laa dimbale xew am nga woo leen ñu dimbale la ci biir xew bi yàlla moo leen moo ñaalee noonu. fii ak fii ak nit ñi toogun nga nga jël micro wax waxal leen seen lu baax dun la may. duñ la defal ñaar dërëm mais am na ñoo xam ne nag ñi ngi lay defal te bëgg duñ bëgg sax nit ñi dégg ko am na ñoo xam ne ñi ngi lay defal duñ bëgg nit ñi dégg ko ku mel ne sama jigéen Fama Ndoye lu lay defal du bëgg nit ñi dégg ko ku mel ne Borso basketteuse sama basketteuse boobu ku mel ne Ibra Fall ku mel ne Fat Naar ah ay Fallou ay Modou Gueye su ma limee sax damay juum. tax lii moo tax corona bi ko. non ba ankay parce que ñooñu mënuñ chaque jour ñu jox la. yow soo soo leen gisee sax da ngay na nëbbatu parce que nag kër lañ wax yore kër kër lañ wax kër mais ñooñ ñi ngi def lu baax ñi ngi def lu baax te boole suñu ay wax mais na dama bëgg ñoom ñu xam ne ñun ay ñoo leen fi teg nañ woo par artiste nañ woo artistes yi te léeg la li ma gën a naqari sax da ngay gis ñu jox leen ñi ñuy jox xaalis sax teguñ ko ci yoon am na artistes yoo xam ne trente mille la ñuy am xam nga loolu trente mille francs am ñoo xam ne ay dix huit mille la ñuy am. non dama yaakaar ne bu ñu séddale dañuy wax ne artistes yëpp comme yéen yéen a bokk yéen ñëpp ngeen tolloo rek tolloo la ngeen am. non que teguñ ko yoon da ngay gis ñoo xam ne dañuy bind ay sareet ndax xaalis bi rek duñ bind sax artistes yi dañuy bind ñu leen saf suñ paree ñooñu du ñuy kaas parce que duñ artiste dañ leen bind rek duñ artiste te nañ gëm yàlla te xam ne yàlla am na mais nag ñun day métti ci ñun parce que amuñ baat ñi ñu xam bariwul mais tey ñi nga xam ne ñoom ñooy responsable yi yàlla def leen tamit ñoom it nit ñi nit ñi nit ñi ñi xam leen nañ génn ñu wax nañ wax. seen seen seen seen seen roi du mbalax bi Youssou moom gis ngeen ko saa yu génnee rek affaire bi affaire bi gën a leer moom parce fi ne nii milliards cent dafa génn kii rek gaa yi jàpp si. non kooku dama koy ñaanal yàlla gudd fan ak wér yaram kooku dama koy ñaanal yàlla gudd fan wér gi yaram defaluma dara waaye xam tax ma koy ñaanal defal na ma. gisee wuñ nag waxuma ay jox nii comme xam nga soo ne defal na ma rek dañu teel su def maa waaw gis su ma su ma gisee sax du ne Cherif Gueye xamuma xamuma waaye dama ne la yàlla na ko fi yàlla ba parce que li tax yàlla na ko fi yàlla ba kooku dey koo xam ne responsable la. kooku du rummi du rambaaj du kekkantoo du kiituwaale doy lu na dégg na dal na moo tax ma tuddee ko daali te li may wax ni soxloo ma ci ñaat dërëm day kilifa doon ku dal nekk nekk ku yiw bëgg réewam ma koy bàkkee xam sa cosaan defit lala war defar Sénégal rek lañ ko xamee kooku moom képp kuy artiste gëm sa bopp danga ko war a màggal di ko jox di ko màggal di ko raamal di ko sukkal ndax nag lim def dafa rëy joxuma dërëm xamuma waa këram kenn xamuma ci waaye nag dëgg dafa neex dëgg képp koy artiste na ko jox cëram di ko jox wàccuwaayam kooku yàlla na ko fi yàlla bàyyi. kon su ma déggee fi bu corona bi jeexoon suba mën nañu xaar Serif Gueye ak euh, ak ak groupe Cumbox euh, def sargal Youssou Ndour. waaw waaw parce que xam tax sargal te su ma koy sargal <laughs> fii laay waxee ci fii de soxla ma ñaar dërëm lim defar réew mi laa koy sargal soxla mu mu may ma oto soxla mu mu ma ci dara. bugguma daraam soxlawuma lennam. teraanga moo koy fay sërif. ku yàlla màggal la. dama bëgg ñu koy màggal. benn paalu mbor ne ma mag yàllaa ko màggal ku màggal mag yàlla màggal la damaa bëgg Youssou Ndour ñu koy màggal. di ko defal xool waxuma la chaque année de di ko defal chaque weer artiste pour dajaloo sargal ko ne ko yaay sunu baay yaay sunu sëriñ yaay sunu xalifa déggoo de. kooku mooy waay kooku kooku su may wax si moom sax damay bëgg ngir lim defal Sénégal te man nag Sénégal moo ma ñor moom dama ko gëm ndax lim defal Sénégal laa ko gëmee yàlla na ko fi yàlla bàyyi tam may ko wér. SBT Média la seen émission nay réer wax naa ki ñu invité muy Serif Gueye ah borom général mais Serif ñu ñëw si sa programme yi façon kebut yi ngay wax ci biir géew yi Serif Serif Serif loolu yow looy kii la nii xool kii di ko wax wala looy répété la wala lal la. non la ñuy liggéey rek man yàlla def na ne man jànguma sax suñ borom daf may su ma nekkee si géew dañ may sol rek parce que don la luñ ma ngéntee la xam nga nit ki moom suñ la ngéntee ci aar noonu rek ngay mën ba pare nga nàmp ko noonu rek ngay mën a ah waaye yàlla xam na ne lépp ci biir programme la may feeñee liñ fi waxoon rek benn jour ma ne la rus naa taxaw di woy leneen waaye nag dina am benn instant boo xam ne dinaa leen ñamul tuuti wan na leen mën naa yooyu noonu nit ñi def di di siiw te su ma koy wax it ko waxee ñu xam ne defuma ko pour pour lenn ndax du sama wareef man dëgg rek mooy sama wareef di wax ci dëgg di taasu ci dëgg waaye dinaa leen ñamal benn loo xam ne dina tojum réew. non xam na damay bañ gars xam nga gars yi dañoo garaaw. non fii SBT Média seen émission nay la nay riir a riir. non gars yi parce que maa ngi studio maa ngi studio te. dinaa leen ñamal benn morceau moom dina yéefin na moom ah. waaw dina tas moom Sénégal moom dina ko tas moom. SBT Média la wax naa bi ah, xaar ko mbokk yi déglul na sëñ waaw c'est vrai que nag morso bii nii ah, lu yéeme la dama ko dama koy kii sama doom di ko déglu sama doom bu ndaw di déglu di déglu ba foofu ñëw rek mu ne ma ni eh nga papa lii lan la. kon Serif li nga wax rëy na. parce que xamee wu ko. ma ne ko parce que damay won ne Baye Fall ñoom yi ñuy taasu nii maa leen ko dàq te mën naa ko te fii ñuy taasu ñëpp. amul kenn koo xam ne du laa liir Serif Gueye nga ñu wax ko ñu bañ koo wax amul ku di taas te doo laal lu Serif Gueye moom parce que nag ñoo ngi fii te nag dañoo gëm benn banlieue boo xam ne muy lu mel ne caaroy ñu ba dañaa ma Serif génnal fi man leen su ma génnee fi fanaa fi laa man caaroy mooy sama sac moom mooy sama base moom laay dund parce que dañ ma bëgg waaw c'est vrai ragal péré day xañ wërsëg man caaroy laa bëgg man ginnaaw Kaolack gi ma dëkk Caaroy laa bëgg ñoom lay ndamoo li ma naan xale yi waa Caaroy dañoo mën a sañse dañoo silwise soo dëkkul caaro da danga naan yuus na yàcc na yesar sa yesar ban daan ne dégg bu fukki gaynde ne yembadu sa naan fi doo day mas xale yi Caaroy kaay lañ jox ma yi bi sa naan nag kam-kam le bukkeeg mbaam timis ga daamatul tolloo waral maas waaye bukki moo man mbaam ku fekk ndox si sa yoonu tool na di ko toxal di nga yàq sa ileer yàq sa te ndox du tox ne leen kuy bandi waaw kuy bandi géew daan xam nañ ñi ko doon bu leen di sonal biir njaw di mel ni lem jooja fajul jooja mel bu yàgg la ci lañ daan sërif géey moom ñëw na sërif ñëw na ma ne ragaluma loolu kon kon yàlla na jàmm yàgg ndax nag suñ borom moo ñu may loolu ñu koy dund di doon ay taalibe nag ci la ñuy dee ay taalibe sëriñ Touba la ñuy dee moo tax yenn yi duñ ko bëgg waaye dama waxtaan ak sama sëriñ sëñ maam ma ne ko sëñ bi mun naa mën a ko in faut ma def benn affaire du sama coobare xamee wu ma loolu waaye dama koy def pour bëgg nit ñi xam ne mun naa yi ñuy def ndax damay génne lu neex lu doy waar jox ko tale yi ko teg duñ ko teg chaque jour nag ñu gis benn nit nit bu ne waxu dof laay wax ñu teg ko ba pare suñ jógee naan dee leen yeete dee leen wax nangam sàngam yeete day njëkk ci ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo yor image yi. waaw di luqati nit ñi. waaye léegi nag li fi am mooy yaa sañse yaa war a génn mais soo génnee wax loo xamut. mooy la jàmbay waxoon rek yaa war a wax yaa sax bu mu tax a wax loo xamut. waaw léegi nag fii li fi xew mooy yaa rafet yaa silvisé yaa jantal war ngaa mën a feeñ si image yi day tax nag nga wax loo xamut ndax chaque jour sa image ngay dundee yow yow moom ngay jaay. wane moo tax loo si gis chaque jour ñu nga gis ku ñu wane ci télé bi mu sol lu bon loo xam ne ñoom ñoo koy mujj dee débat dem leen naqari seen biir. parce que ñoom ñoo ko bëgg te Baye Fall yaa ngi fi nañ génne Baye Fall yi Baye Fall yi wane seen bopp. léegi laa bëgg sërif nga may ko gars yi. Euh, loolu moom. non mos en tout cas daal li ma ci mosal daal mooy góor ñi jigéen ñi nañ takkante ndax soo ko takkee di ko def dina dagan soo ko takkul di ko def du dagan kon teen koo takk di ko def muy dagan li si des nag moom dama koy bàyyi à suivre ndax après soo takkantee ba pare nag looy def nag. raay ko raay ko nu mu maanaam loolu nan la dikkee raay ko raay ko. raay ko moom raay ko moom ku ne sañ soo toogoon si fauteuil bi sax fi nga toog neex la su la neexee nga ne nii raay waaw raay ko raay ko moom nuñ ko nit ñi gisee dama ciy kontaan sax man en tout cas man ni ma ko wooyee man sama xol noonu laa ko wooyee muy sa loxo ca kaw ku doon champion bañ na la sa loxo sa kaw wàcce sa loxo si suuf foo ko teg baax na. sa loxo mais Serif yi nga xam ne gars yi gis nañ miin nañ ko ci yow ci SBT ak yeneen kii macha allah ngay def buzz ah sabar yi jékki-jékki raay ko raay ko xale bu ñëw fecc nii nga raay. ba pare boole leen si cuq na neex na duuf na dëll na daane ba nga sàccee di dem sambaxana mbaxana wadd sànni jaayoo ko for jox la ko caraara loolu maa ko wax bii ñëw nag moo gën a neex nag bii moom day dëgg ndax xam nga ni ah dina doy waar daal baal ñu dag ko rek naa sànq si biir wax seen émission nay riir ma leen di wax ne SBT Média la abonné leen ah ngeen ba seen ko notification ki ñu dalal doomu Caaroy ah, doomu Kaolack mais mais Serif sànq dégg naa si biir wax nga ne euh, gars yi taasu euh, ku ne jël nga ci yëfu maanaam jël nga chaque jour ñu jël yëfu Serif loo xam si ñu wax ko ak ñàkk ko wax comme li si mel nag la bari na bari na lool mooy li ma xam dañoo nekk wax naa ko fi sa benn émission man la tey sooy wax dëgg dañaa da ngaa soxor dañoo nekk si jamono joo xam ne day jamono naa féq bu bari nag waaye nag dëgg mooy mujj te yow xam nga li ma lay bu baax njagam ñu baax ñii ngi di jaamu yàlla di dund ci yàlla ñooy wax naafiq yi di si wax sàkkantama ñun nga xam ne ci ñoom la ñuy roy te defaluñ dara euh, ki ñu sàkk ndax lim ñuy aay yëpp bàyyiwuñ ko comprendre nga sàkkantumaak nag ñun ñii ñooñu nag njagam ñooy wax di chaque jour ñun suñuy nelaw ñoom ñi ci yàlla ak yonent bi ñooy wax nit ñi di ci wax sàkkantuma ak ñun moo tax léegi dañoo nekk si jamono joo xam ne sooy dëggu dëggul rek dëggul parce que nag àdduna yàggul de àdduna yàggul kon loo ciy def rek na doon lu baax man foofu laay waxee waaw ñëw ñu ñëw si actualité bi euh, muy diggante Sidy Diop ak Wally euh, bi nga ko déggee ñoom ñaar ñi ko ñi nga fay dégg sax beneen coow mooy soirée bi ah yàqu na ah waa Wally ñoo ko yàq ñoo ko lii parce que ñoom ñaar fi kenn ku nekk fi ñu doon tëgg sorewut ah, nga dégg fi mu nekkoon fi coow lu bëri tey génn nga ñu ñëwaat ci ci ci même benn jour ñoom ñaar ñëpp génnandoo. waaw foofu laay waxee gis nga yooyu ay showbiz la ay aar bu ne te damay nga baal ma fenn ma wax ak ñi nga xam ne. ñoom demuñ bëgguñ ko dem ma wax ak ñooñu ba pare dog di la tontu. ñi demul bëgguñ ko dem. ñi demul bëgguñ ko dem nañ bàyyi wéeru gu mitti gi ak seytaane gu mitti gi nañ bàyyi loolu nañ bàyyi soxor li tax ma na nañ bàyyi soxor ñoom la mooy seen yoon ci Wally Seck ak sii di artistes yi parce que Wally da leen may xar di leen may xaalis. looloo tax nañ gëm seen bopp nañ mel ni Sidi moomu nañ gëm seen waale bi bëgg a dem kan la teg bët kan taxawul fii nii moog Pape Diouf de gis nga liñ fi waxante ah lu mu fi wax en direct fii moom taxaw kii baax na doy na mu miti Thione Seck gis nga tendance fi lañ ko fekk fi lañ koy bàyyi Thione Seck lu ne lay wax Youssou Ndour Youssou Ndour daa daa daa Youssou Ndour tontu ko Youssou Ndour nga liggéey. waali su ko Sidi waxee dara na liggéey te fi da ko fee waxul dara sax lu ko fi wax Sidi déggu leen wax fi dara loolu di liggéey am na droit tendance la aar la su ko neexee su ma su ne waali ne far yoolee mu ne gay naa ko mais ku ne sa kër ngay yóbbu ku ne sa poos ngay dugal ku ne say waajur nga yor bàyyi leen naa naafeq gi te bàyyi saytaane gi Waly sekk na bay waaram Sidi bay waaram ñoom ñëpp ay xale lañ yëf yi sax ba xam nga cuune sax weesuwul ñu jël yëf yi sax teg ko ci ay pap ay ay ay Sidi luñ duñ fi duñ fi defoon temps yii passé ma wax ko fi jël aar bi def ko si diggante Pape Diouf Waly léegi dem dem nañ bàyyi nañ loolu léegi Sidi Sidi Waly ñoom kese duñ fi artiste yéen artistes yi gëm leen seen bopp ñooñu fi ñu yegg war ngeen fee yegg man gëw ñooñu gëw ma ci kenn sam bopp laa gëm. mais bàyyi leen seytaane gi te bàyyi wéeruwaay géeg xar yi ngeen di jënd ak di leen may yi ngeen di sar xoole bëgg ba fàtte seen aar loolu mooy affaire yi sii di xale la mi ngi liggéey waari xale la mi ngi liggéey ku ne na bàyyi waaram concurrent nag fi lañ ko fekk far fos day am njagam sëriñ yi ñi gën téeméeri junni yoon mooy am concurrent sakantement ñun ñi nga xam ne defuñ lu neex yàlla sëriñ Touba maam Alaaji Malick am na ñoo xam ne sëriñ Touba lañ bëgg bëgguñ bëgguñ maam Alaaji Malick am na ñoo xam ne maam alaaji Maalik lañ bëgg bëgguñ sëriñ Touba daa tax ñuy am na ñoo xam ne yonent bi lañ bëgg bëgg am na ñoo xam ne bëgguñ yonent bi instant lañ bëgg te ñu ngi dund si senegal gi ñu ngi dund si adduna ku ne ak ki nga bëgg concurrent njagam nag foofu la ci ci ci ci ci ñi gëm yàlla di dund ci yàlla la am sàkkantumaak nag ñi nga xam ne waxuñ leen lu neex yàlla adduna la ñuy wax kon li ngeen wax yéen neexul yàlla. man maa ngi man ñaan naay suñu borom jox ma leneen lu nekkul lii parce que du ma ci dee est ce que man su deewee suba dañ may toppee cool ak mbëmbëng ak guitare duñ ma topp cool mbëmbëng guitare dañ waxante dëgg rek dañuy wax dëgg te yàlla tax lii yàlla moo ñu si nattu ñu koy def waaye kenn du dem ci jumaa jee di yóbbaale cool wala mbëmbëng wala wala sa guitare wala sa clavier comprendre nga. Euh, Serif ah, mi ngi ñaan yàlla may ko leneen loo xamante ni moo gën lii muy def. waaw loolu laay ñaan. loolu laay ñaan de barki Seydina moo xam su ma ko yàlla mayoon léegi ma dem ca man loolu laay ñaan du ma dee ci aar yàlla bu ma di nekk ci aar di nekk ci aar ba béj jaaw yàlla bum am ñaanu ma ko yàlla dama ñaan yàlla pour suñu borom bala mu ma loo def dara jox ma lu gën lii ma nekk mais gars yi na dañoo teg ne aar bi kii la guerre mondiale ku ne na gëm sa bopp man merewu ma ci kenn merewu ma siidi merewu ma wàll yi xam nga ñan laa mere suq yi. suq mooy suq yi mooy ku wax waali nga génn di suq di wax waaye lan la lan la ñoom ñoo moom ni ñi luñ bëgg. suq yi mooy ñan waaye ñiy wax rek ku kepp ku wax yaa waxaloo sa bopp képp ku wax. képp ku wax laa la ak képp artiste boo xam ne rek dugg nga si diggante sii dégg waali saytaane nga yow gëmal sa bopp nga mel ne ñooñu waali gënu la sii gënu la soo bëggee dem melal ni Waly soo bëggee dem melal ni Sidi waaye ñoom ñi ngi liggéey di def dara yow defoo dara bon yaa may dégg di soxor liggéey yi leen te bàyyi Sidi ak Waly yi ngeen topp ni di ko ñoom ñi ngi dem ñun nañ fexee dem Sidi deful dara Waly deful dara concurrent la Thione Seck ngi ne ak Youssou nduur comme xaj ak muus daa tax est-ce que seen yegg na seen biir xol yeggul seen biir xol fi ne nii euh, Waly Seck ak Sidi Diop ñoo bokk fu ñu yi la ñuy lëre waaw yow même suñu leen lëreewul ku ne da ngaa bëgg a dem ak mën a dund ñoom problème la waaye Sidi Waly daa bëgg a dem si poosam lay def Sidi daa bëgg a dem si poosam lay def Sidi daa am yaay am baay Waly am yaay am baay ku ne di jox say njaboot kon ku ne li ngay li ngay liggéey di sa jox sa njaboot bu ko kenn gënal man mi Waly gënalu ma sama bopp Youssou Ndour li ma koy bëgg di ko bëgg yëpp gënalu ma sama bopp Sidi gëm na lu ma parce que man gisewu maak ak Waly gisewu ma ak Sidi kon xam nga dëgg laay wax man Waly mayu ma ñaanu ma ko Sidi mayu ma ñaanu ma ko Youssou Ndour mayu ma ñaanu ma ko li may am dama koy liggéey kon nañ gëm seen bopp waaye suñ waxee Waly ñeen jóg non non non nangam sangam sangam nangam nangam sangam ñooy kan ay suq lañ ay saytaane ngeen. dem leen mel ni Waly wala ngeen mel ni siidi man loolu laa leen wax en tant qu'artiste. dégg ngeen ko muy Chérif Gueye li mu wax si diggante ah Sidi Diop ak Waly Seck ah dégg ngeen moom li nga xam na si moom la si xalaat moom moom la si joxe comme xalaatam mais nay riir la SBT Média mais mais Chérif fu ma bëgg ñu fu bëgg ñu ñu ñu ñu ñu jeexalee ko ah mooy mooy mooy gis nga ko beneen actualité beneen ñoo xam si ni ay wax ah te te la may wax chaque jour nit lépp loo koy waxal. ah na lépp looy wax na ko xool baax ndax dafay des image dafay des ah donc dégg ngaa fi beneen coow ah après dem ba si biir gis mooy comme li may wax actualité bi rek pourquoi yéen artistes yi mënu ngeen mënu ngeen a booloo ngeen doon benn. non man de doon naa ñëpp benn mooy li ma rek yow li ma la wax nga may indilaat. géejuwaay gi géejuwaay fii nii nag yaa gaa yi nii am na ñu bëri ñoo xam ne dégg naa du ngeen de. kat man non baa li ngay wax non non non kon xanaa dañoo bëggul dëgg man ci dëgg laay dox. ki ngay laaleel mooy ki ngay dem yëfam man li may gis nii soo doon toj sama buntu kër nii invité wu ma dem kon ban problème la ñu war a yi li tax ñu ne ñoom li tax ma ne la gars yi duñ laal forna ci tax gars yi bu ñu boo xam ne da lay jege sax wala ngeen di ànd mais day am programme da ngay jékki-jékki gis boo programme bi jeex duñ fa gis Serif Gueye boo laajee lan bi nangam nangam lan la mooy problème bi non xam nga moom man njëkk fi la mi ngi mel ne Youssou Ndour mii xam nga defee njëkk tax xam naa booy yi fi nekk yëpp fi mu naa maa leen njëkk ci aar ñoom ñëpp ñu bari jaar nañ ci man ñu bari di jouer fii aar man aw ma concurrent fii gé fii nii fii ci booy yi doog di jog man aw fi concurrent suma may élève lañ am sa élève jàngal ko ba pare mu am programme ah war woo maître mu ñëw mu mu mu def mu mu tare ci kanamu maître ba pare invité maître invité yeneen maître mais loolu lan lay nuru waaw parce que xam na ne su ma ñëwee man li ma fa war am moom dinaa ko su ma ko yéenee danaa ko am su ma ko yéenewul danaa am yow nag su dee yow yéene nga ma ko di ma woo soo ma ko yéenewul bo bul ma woo loolu la mais ama kenn problème de parce que man soo doon toj buntu kër gii te woowoo ma duma ma ñëw sama yoon nekku ci du ma ñëw waaye concurrent wu maa kenn man man su ma ñëwoon ci géew di nga xam ne concurrent maa kenn su ma ñëwoon si sa géew ni fekk waxoo nii laay def ba ne ma sama grand ngi noonu Serif Gueye kaay joué ma waxul waaye suba tamit yow it di ñëw sama yëf njagam yow mi xale ma njëkk la ci aar bi mën la ci yaay ñëw yow di ma xool nii dugaloo ma sàkkantuma ak yow nag man man man mi nga xam ne man maa la mag téebri jono dàqale li def soo ñëwee sama géew man ni da nga am ngor gune bu ma jaxaseeg nit ñi bul ma jaxaseeg kenn mais nañoo nekk ci aar boo xam ne léegi nit ñi dañ lay jaxaseeg nit ñi da gis sax artiste bu taxaw naan ma soo ñu ma ñëwee sama sama koñ yaa may dégg dama lay jaxaseeg nit ñi man gis naa ñu koy wax gis naa ñoo xam ne dañ naan dama lay bàyyi ba nga joué sama koñ ma ñëw jaxase la ak nit ñi suñ la fayee cent mille man dinaa fa am quatre-vingt mille dinaa la jaxaseeg nit ñi ma loolu ma koy dégg nag ko dina xam ne yow saytaane nga aar taxulaa jóg saytaane moo la tax a jóg te looy wax nag naa ko jàpp nag te soo dikkee bëgg maa jaxaseeg nit ñi damay won ne nit ñi kii saytaane la nit ñi nag bëgguñ dëgg taman ci dëgg laay dox ku ma woo dinaa ñëw soo ma invité ma ñëw soo ma invité wul du ma ñëw sa yëf yow it su ma xewlee invité wu ma la bul ma jaxasee kenn bul ñëw waaw man noon laay dund. li ñu mën a jox xaabaabul noonu mais ku ñu invité mooy toll muy Chérif Gueye projet yi lan projet yi mooy maa ngi studio maa ngi studio am na tournée bu ma waroon a def lu mel ni Italie Allemagne France mbas mi moo ko yàq. ak nag sama groupe génnee gu ma kaset de mais incha allah su mbas bi duggee ak sama groupe dinañ def benn tournée européen incha allah te it maa ngi studio am naa lu may génn du yàgg dara mbas bi moo tax ma téyewaat ko waaw loolu la man gars yi sax léeg dañ may woo ay invitation tale mais dama koy off duma dem ñu bari nag dañ may woowee invitation tale mais duma dem parce que tamit bëgguma dem lu may wane suñ ma waxee lan laay wax parce que su ma suñ ma invité dëgg laa ni wax ndax génne naa fi ñaata kilip teguñ ko te li ma ci wax barki Seydina Muhammad ñi teg ni waxuñ ko su dee yeete rek parce que maa ngi naan magu démb ya fa nu rawee gone tey dañ daan dogguwaat ci yàlla ngir am fa barke na danañ jur wàlliw wala baram barke bu baa sax ku jiiteem réew waaye xale yi léegi nu ñuy sëyee mooy duma toggal goro duma ma fóotal njëkkate naan sama goro bu jigéen yàlla na dee manaan leen maara dey taali wut seen appartement wéetug seen i jëkkër ne Kumba sama mag bu jigéen baal su ma bugguma su ma waxee wala pambaay wax nga daal di mer ndax sama yaay sëy na ba màggat ta masta mer ne ko métti muñ sonn muñ bëgg a dee muñ ku muñ muñ métti daw sonn daw bëgg a dee daw ku daw ñaaw métti xelu doo ci mën a raw ta danga sa ñaaw kon muñal yow muñal muy njariñ daane xoolal aawa buuru këram moo fi ne woon daret ba dara dul dara di dar dari ba lépp di dara aawa ku ko ñeemas na ko yërëm yërëm sa téere ngërëm bi nga yor faram fàcce ko mooy guddee ñaan muñal góorgóorul sëyal dina baax say xare la saa yoo sa juree doom jam nañ nga ne ko doo rummi doo rambaaj doo kekkantoo doo kiituwaale doy lu nga dégg nga dal nga loolu yeete na wala ay paralotisme ah. waaye ay waxi dof lañ fiy wax lañ fiy teg ñuy apprécier parce que jànguñ seen métier moo tax tubaab bi dañ ñuy raw baat la du tukki nag dañ ñuy raw kon yàlla na jàmm yàgg xarit. ñu bàyyi la nga tàggoo ak mbokki internet SBT li may tàggatoo mooy yéen tale yi loqati leen Baay Faal yi wane leen te bàyyi farfarloo bi. comme waaw yéen moom gàccee ngaalaama yéen moom. damay bég ci yéen yàlla leen fi yàlla bàyyi rek ndax ay artistes ngeen da ngeen cee jaar ci milieu bi xam ngeen yéen jaar ngeen ci milieu bi xam ngeen lépp kenn mënu leen cee nax waaye noonu ñoom dañoo jaarut ci milieu bi ñoom dañoo jékki-jékki rek ñu jël leen sànni leen ci tale yi ñuy niroog ay gunóor bàyyi leen farfarloo jeeg ñi leen di doxaan ngeen leen di invité ak di invité seen i gel yi bàyyi leen yooyu affaire saytaane yooyu. SBT Média la seen émission nay riir di leen dig daje ak beneen daanaan ak beneen invité ah ci SBT Média Chérif ñu lay baax ndax macha allah saan ko soxlaa rek woo ko donc mu disponible merci beaucoup jërë ngeen jëf